tourisme la mooy sunu quatre. ceebu jën national. élevage moom ministère de l' élevage moom souvent man sax ministère de la tabaski laa koy woowee. Ah puisque duñ ko dégg tant que tabaski ñëwul. te bu tabaski boobu ñëwee xar yi ñuy euh, rey Sénégal li ci ëpp bitim réew lay jóge hmm. côté boobu est-ce que yow jàppoon ne sa industrialisation bi nga def euh, axe central. Hmm. jàppoon ne dafa nar a souffrir. ci secteur primaire bi nga xam ne dañ ko délaissé wax nañ sànq si agriculture mais boo setloo élevage tamit c'est la même chose pêche bi souvent ay licence rek la ñuy jaay amul lenn loo xam ne dañ koy transformer fii bind ci made in Sénégal. waaw ah, mais loolu laa loolu la expliqué ne laa nar a changé. Hmm. loolu laa nar a expliqué ne laa la pêche bi damay dem sax ba indi mbayu mbayu jën culture bi ñuy def soofantal ko mais loolu mooy parfois la réponse le temps que voilà les espèces se reproduisent à nouveau parce que boo raclé sa sa fond marin balaa jën di ñëwaat day am temps. pour hmm. que mu reproduire <laughs> te ñu war a continuer di am euh, ressource protéine war a continuer di lekk donc loolu it day et puis day doon source de revenu non seulement source de revenu mais day améliorer aussi condition nutritionnelle suñu réew mm-hmm. yooyu da nga koy da nga koy farataal waroon nañ mën a am mais la pisciculture urbaine man dem naa dëkk yoo xam ne lu toll ak table bi nii mais day produire lu famille bay añee ak reere ci jën suñ ko mënee def en Asie pourquoi ñun mënuñu ko def voilà non OGM c'est une autre chose faut pas mélanger les choses. non damay laaj rek non man. man ko laaj mais tontu ko ci élevage bi maam Birame junj élevage ci côté industrialisation beeg yooyu. comment faire pour que du nekk loo xam ne secteur boo xam ne aussi dañ parce que fi mu nekk nii daanaka dañ ko xaw a bàyyi tabaski la dégg élevage ñi ci des ñi koy def ñëpp lu ci bari dañ koy def nii rek mais xëy na duñ ci gis seen bopp de trop. waaw mais bon loolu. mooy soow mi dañ koy tuuri lingeer ak yooyu. non non kenn tuuratul soow loolu aussi ah. c'était un ancien ancien cliché parce que. y a quand même léegi y a quand même des unités maintenant de production yéen a ngi koy gis d'ailleurs ñiy hmm. jaay soow. gis ngeen y' a beaucoup de marques maintenant. Euh, waaw mais mais y' a se pose un très grand problème. non mais y' a un problème de stockage yu am. mais de taxe sax et de taxe sax parce que dañuy seetlu ne boo jëlee bëgguma def publicité. mais mais yoo xamante ni Sénégal fii lañ leen defaree. état bi lu mu ci tiire ci taxe moo ëpp meew boo xamante ne ni dëkk bu toll ni Hollande bu tollee ni Hollande lay jóge ñëw fii Sénégal taxe meew bu ëpp bu jóge fii Sénégal xaalis découragé yenn producteurs yi nga industriels sénégalais yi bëgg a euh, euh, investir ci secteur boobu loolu tamit ça pose problème. parce que ni muy ñëwee la ñun li ñuy kën a importer mooy pëndax meew. voilà ni muy ñëwee la pat pëndax meew loo ñëwee dañuy jàpp ne du produit fini et cetera et cetera. ci nomenclature douanière bi noonu la demee parce que pëndax meew la ñuy gën a importer que naan meew bi nga xam ne moo fi nekk donc c'est ça qu'il faut inverser d'abord war nañ mën a defar pëndax meew ak suñu meew pour commencer amul benn raison dafa bokk ci li ñuy wax bi ñuy importer puso bi ñuy importé amul aucune raison pour que ñuy and euh, voilà di importer les en poudre donc bu ngeen bokkul nomenclature <laughs> bien sûr dañ lay appliquer beneen beneen mais li ci ëpp solo mooy ñu mën a comme on a dit pour l'agriculture organiser les coopératives d'éleveurs mu bañ a doon rek opération tabaski non ñu créer une chaine parce que bu fekkee ne euh, voilà di nga yor yar yar ay brebis doo yar rek ay kuy d'abord pour commencer brebis yooyu mën na laa jox meew ñu former la ba nga mën a def voilà produire euh, les produits dérivés le fromage le lait le lait en poudre mais loolu mooy indi développement ça li may wax nii c'est l'histoire du du de voilà de l'industrialisation dans tous les pays dëkk yëpp war naa mën a nekk mais loolu pour ñëw ci deuxième transition bi li koy may li ñu koy may mooy ñu changer ni ñu organiser suñu état parce que yaa ngi may wax lu tax euh, atteindre ñu euh, objectif yi nga xam ne fixé woon nañu hmm. ko parce que ñun dañu am li tubaab naan état jacobin mooy chef ba ca kaw lay nekk hmm. yor ay ministre am ñu yor seen i cabinet seen i 4x4 après ñu am seen représentant dans les régions kooku tamit yor ay balaa mu wàcc ba ci suuf daanaka frais de fonctionnement yi jël na lépp inverser les choses inverser les choses loolu sax c'est prévu par la loi sur la décentralisation hein. Mm-hmm. c'est les comités de quartier et les comités de village foofu la ñu war a commencer foofu la ñu war a amee des plans de développement yow noo ko doon defee voilà nu ma ko doon defee mooy ni ñu koy defee nii parce que mënu ah, change aw loolu baaxul kay ah non mais néew ma la baaxul dama la ne c'est pas efficace. am mbiram aussi. waaw waaw tey efficacité da ngay déglu aussi. te tey efficacité ko bëgg doo ñu wax. da ngay da ngay nangoo déglu voilà. li may expliquer mooy c'est pour ça que je suis candidat d'ailleurs. oui là j'ai la latitude moi-même d'appliquer. li may wax nii c'est juste des conseils. moo ko conseillé bu ko borom bëgg la dégg mënu ma ci dara. kooku moom c'est trop tard pare na si. voilà donc moom c'est vrai pare na donc il faut que ñun ñu jël le temps waxtaan ak Sénégal yi wax ak li may expliquer mooy euh, li nga xam ne moom la ñu war a def mooy li loi sur la décentralisation prévoir mais le conseil de quartier et les conseils de village mais joxuñ ko contenu tey boo ñëwee sama koñ foofu ci Kasnack voilà wala scat bam bi conseil baa nga fa mais amul budget amul plan d'action amul amul dara mais chômeurs yi ci quartier bi lañ dëkk femmes yi nga xam ne ñoo ne ci GIE ci quartier bi lañ dëkk ñi ñu war a former ci quartier bi la ñu dëkk et cetera et donc il faut que vraiment la priorité ñu def ko au niveau de ces conseil de village et de quartier conseil yooyu nag bi ñu ko politiser ba noppi jox obligation loi buy changer aussi certaines choses au niveau des mairies obligation de la mairie de transférer quatre-vingt pour cent de son budget au niveau des conseils de quartier mhm. plan d'action yi bu ñu amee sous la supervision du sous-préfet ñu associé si ci biir conseil de quartier bi jeunes yi femmes yi voilà euh, opérateurs yi économiques yi fa nekk ñuy jël les décisions par consensus c'est le modèle que le Rwanda a adopté ah, moo leen may vraiment parce que loolu li muy lay may mooy mm-hmm. man su ma ñëwee bokk ci conseil de quartier sama kàddu dina compter danaa mën a surveiller danaa xam xaalis bu ci ne fam fu mu dem mu doo li ngay dégg détournement ci GIE bariwul moom la nga koy dégg ci ASC e bëriwul ndax autocontrôle au niveau communautaire ça il faut que ñun suñu développement mu jógewaat ci base bi yéeg ci kaw newuma état day supprimer wu de déedéet état mooy facilité loolu ba nit ñi xam ne voilà war nañu dugal seen loxo ci seen propre mais est-ce que xaatimu yi ñuy hmm. jëlee ci bitim réew maanaam nous avons fi mu génn laa bëggul est-ce que gënul ñu xoolaat par exemple suñu rapport avec les institutions par exemple de Bretton Woods euh, lu jëm ci yenn yi nga xam ne ni mooy euh, institution internationale comme ay FMI yooyu noonu mhm. est-ce que tamit yooyu doonul it ay jafe yoo xam ne ni mën nañ ci waaw loolu it na ci man li ma jàpp mooy ñun ñoo war a définiral suñu bopp nu ñu bëgg a suñu réew yi voilà du nasoraan yii du ñeneen ñun ñoo war a de de am suñu model ne leen kaay leen jàppale ñu ci. Mhm. et pas le contraire. te foofu la réew foofu àddina toll d'ailleurs. Mhm. parce que xam nga dafa àddina toll foofu. Mhm. parce que avant benn pôle moo amoon boo bëggee am xaalis ci tubaab yi rek ngay dem lebi boo bëggee voilà euh, yenn loo bëgg war a am rek te soxla ko foofu rek nga mënoon a dem parce que ñoom rek a développé woon. waaye ah, léegi mën ngaa dem Chine mën ngaa dem Inde mën ngaa dem Russie donc ñoom rapport de force bi changé na bu baax a baax a baax ñun ñoo war a définir suñu propre modèle voilà euh, modèle boo xam ne ku ne da nga ciy gis sa bopp man dama jàpp ne dañu war a am un nouveau pacte social dans ce pays am un objectif mais fondamental voilà en terminer avec la pauvreté d'accord Pamatar bon euh, man euh, dama bëgg ñu taxaw un peu sur l' existant euh, vrai que projection yi baax na euh, tey jii madame Aminata Touré présidente euh, du Sénégal ci existant bi par exemple yaa ngi wax ci industriel industrialisation wu Sénégal ak yooyu am na ay industrie yoo xamante ni am na fi bu ci mel ni ICS yu ci mel ni Sonacos wala sax Sotiba tey jii dans l'immédiat nga fallu le 25 février 2000 2024 lan mooy doon. taxawaayu madame Aminata Touré en tant que présidente euh, de la République du Sénégal benn bi aussi yaa ngi koy wax ci bay bi euh, parce que bu ñu waxee bay aussi dañuy wax suuf euh, suuf bi am na benn problème le président Macky Sall sax waxoon na ni li muy jot ci ay bulletins de renseignement alerte yu gën a bëri ci wàllum foncier la suuf si ba ñu jugee ci laamaan yi dem ci domaine national bi malheureusement état yi dañ ko jël jox ko ay privé ba ñi nga wax waxu sax euh, ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ay agriculteur dañ leen mujj transformé def leen li nga xamante ni ay lii nañu mujj doon ay simple simple simple employé nañu mujj doon euh, dans les médias boo falu woon lan ngay def pour indi ay solution par rapport ak question yoo xamante ni question yu taxaw la yoo xamante ni sénégalais yi dañ si dañ si soxla ay solution daar daar alors commencer ci sa première question bi mooy industrie yi fi nekk mais je pense que ñun li ñu war a def aussi mooy fexe ba yeneen industrie ñëw investir foofu dañ koy continuer def parce que li chinois naan foog nga doxeek sa ñaari tànk marcher sur ses deux pieds voilà ñoom tamit ñu fexe ba am en tout cas ñu encourager leen pour ñu am ay contrat de sous-traitance avec d'autres petites entreprises yi nga xam ne moom laa bëgg a créer bu ko defee ñoom au lieu ñuy jéegaani yenn matériel yoo xam ne dañ koy importer ñu mën a am sous-traitance avec mi PMI PME chaîne la daal mhm. daanaka aujourd'hui tey Sonacos voilà tey importé ces grain son huile pour l'essentiel mhm. mais Sonacos boo amoon partenariat ak les petites huileries yi may wax mais c'est bénéfice bi c'est mutuel mhm. donc moi je vois une chaîne entreprise yooyu dañ fiy continuer di nekk mais aussi ñu am ay partenaires yoo xam ne ñu ngi fi le temps que entreprise yooyu aussi mag ba toll ni ñu war a toll war nañu aussi attirer plus d'investissement parce que ñuy soxla aussi ñu ñëw dañuy soxla expertise yu bees wax naa ko ci affaire gaz bi parce que amaguñu expertise boobu mosuñu am gaz donc amuñu ñu ñu former ñu mel noonu donc ça également day day dañu war a fexe aussi ba ñu am attractivité attractivité nag lu da ngay changer code du travail rek parce que ñoom noonu lañ ko gisee attractivité mooy payer de de petits salaires euh, le code du travail flexible ya a pas que ça moi je pense mm-hmm. je pense aussi lutter contre la corruption par exemple am na solo pour que nit ñi mën a ñëw voilà euh, je pense que ci at yi ñu jëm notamment ci liñ tuddee le contenu local bi ñuy wax voilà opportunité la parce que bu ñu génnee gaz bi di nga transporter gaz bi di nga ko di nga ko ay produits dérivés produits chimiques ak yu ni mel donc pour man il faut vraiment ñu euh, aussi rendre suñu bopp attractif rendre suñu bopp attractif mooy commencer par am sécurité am stabilité ñu delloo si waat ci troisième mandat kenn du ñëw di dugal sa xaalis ci dëkk bu am tolof tolof amul. je vais parce que yaakaar naa ni euh, comprendre loo sama gi pourquoi ma jël ICS ICS Abdoulaye Wade moo ko bazardé bu ma jumul jox ko euh, ñi nga xamante ni mooy euh, lu mu tudd indien yi ñu fay def ay semence di ko yóbbu ci seen ci seen réew te bu ñu wax waxu bay wax waxu semence ak yooyu est-ce que tey madame Aminata Touré présidente de la République du Sénégal dina Euh, waaw deux mille deux mille vingt quatre dina nangu euh, euh, renationaliser li nga xamante ni moo ICS e est-ce que aussi dina nangu par la même occasion suuf bi nga xamante ni dañ ko jël par par parloo jox ko maam Birame wàcc mu toll ci ay hectares. jox ko ko tout simplement parce que xaritu président la jëlee ko ci domaine national est-ce que tey moom dina nangu remettre at certains acquis remettre at ko en cause. moom alors renationalisation am na dëkk yoo xam ne voie boobu lañ jël. Mhm. fekk nga yor xaalis boo racheté. parce que nag on est dans un système aussi de droit international loo def fii euh, entreprise u jàmbur mu xaar la aussi au niveau international où il y a aussi des tribunaux commerciaux internationaux donc mais li nga xam ne mën nga ko exiger mooy au lieu ñuy jël di jaay mooy préférence ñu jaay d'abord fii à des coûts compétitifs benn ñaareel yoon c'est organiser un système de sous-traitance ba nga xam ne du doon ñoom rek sax ñooy parce que ab dëkk nag bàyyi man je suis contre le système de monopole par exemple aux États-Unis c'est interdit par la loi boo organiser sa bopp ba yow kenn yaa des ci secteur bi dañuy lay yóbbu dañu lay yóbbu tribunal fexe ba aussi dans le secteur mu am d'autres acteurs d'autres acteurs moyens qui vont commencer par sous-traitance et qui peu à peu vont continuer di yéeg affaire suuf si moom mooy ci risque d'instabilité gestion suuf si ñu bokk mooy premier risque mm-hmm. contentieux bi am ci suuf man bi ma nekkee euh, ministre de la justice c'était le premier contentieux ah mais je pense que il faut que ñu toogaat xoolaat naka la ñuy attribuer nos terres moi je pense que c'est pas un seul service qui doit attribuer les terres dans ce pays pourquoi c'est une direction voilà des domaines moo war a attribuer le, le, le, les terres yi ñu bokk ñun ñëpp dañu war a am de commissions des commissions multipartites boo xam ne tous les segments de la société dañuy toog bu ñuy attribuer attribuer terres yi man je suis pas non plus aussi pour que ce soit que, que le de son terroir loolu li muy indi aussi mooy difficulté yi mooy li may wax gestion participative et inclusive participative et inclusive mooy tax tension yi nga mën ko nga mën ko amoindrir li nga xam ne mën nañ ko def te ma gis ko mooy les commissions de distribu d'attribution dinañ dem ba di tirer au hasard ñu ngi toog sénégalais nga sénégalais la def nga demande pour am deux cent def naa demande pour am deux cent lu tax ñu war la jox te duñ ma jox pourquoi sur quelle base donc il faut que de ce point de vue là ñu def comme on fait dans les autres pays nit ñi am sentiment ne ah ñu ngay lotir euh, voilà ginnaaw Tivaouane Peulh mais ma dem déposer ne man bëgg naa ñoo xam cinquante mille demande la wala lu muy mën a doon huit télévision ñu wane ko tiré ba looy jeex comme ci sa chance nga am ko voilà ñu ne ñi domicilier dakaar ñoom lañ koy jox bés bu ñuy bés bu ñuy lotir euh, Louga voilà ku domicilier <laughs> ñi domicilier Louga voilà ñoom ñoom ñoom ñooy postuler et cetera et cetera loolu c'est c'est possible mais bu fekkee ne nag c'est à l'exclusivité de quelques fonctionnaires moi je parce que ñoo ko bokk c'est une ressource nationale et ça c'est doo def comme nu Sonko wax ñi nga xamante ni dañu sàcc alalu askan bi euh, jënd ci ay suuf nga nangu ko delloo ko askan bi